donc euh, yow lan moo ci sa jàngat euh, <laughs> kii bi yéen peut être def na sa mhm. ne. géejawaay Rufisque. Mhm. am naa yaakaar ne géejawaay dinañ ko reprendre parce que géejawaay yaaw yi yeewi bu ñu fa rawee woon lu bëri xëy na résultat bi. Euh, problème bureau bi du demee noonu. <laughs> Rufisque aussi am naa yaakaar ne que responsable bi ñu dajaloo. dinañ fa am victoire. Mm. maintenant pour bañ a nax sa bopp aussi là il faut faire des efforts c' est Dakar département. Mm-hmm. ak département Mbacké. Mm. foog naa ak Ziguinchor. Mm. parce que nit aussi doo doo doo nax sa bopp. mais bu ko weesoo te même yii ma tudd sax responsable bu ñu jouer le jeu. taxaw dès maintenant bañ a bàyyi ba jouru campagne ñuy wàcc di def seen xaalis. Mm-hmm. je pense que mën nañu am yaakaar. Mm-hmm. mais euh, une fois Benno est majoritaire dans le pays. dans le pays on, on va émission bi jeex na bi jeex na. Cosaire mu ngi dox moom mi nekkatul Cosaire. moo fa nekkoon mais nan la nan la ko gisee. <laughs> léegi grande dame la léegi grande dame la. boo gisee Cosaire xanaa gisoo ne dafa sax changé léegi ay ay lay sol